njëriñal jaaro bi mooy képp ku am jaaro bi yàlla musal na la si cat fekk yaa ngi ànd ak moom képp ku la catu def ko exprès lépp lu mu la yéene ci cat la pour catu la dana dellu ci kawam directement mm-hmm. képp ko nekkal ci service wala nga nekkee moom ci kër mu añaane la ca kër ga di la fa xatal nga takk jaaro bi nekk ak moom dana dem ba dootu xaj ci kër ga dana la génn kër ga abal la ko bu dee ci place la mu génn place bi abal la ko loolu ay nit ñëw nañ ba ci man confirmer ma loolu ci jaaro bi képp ku ko takk nga nekk ak nit mu añaane la wala mu bañ la muy dem ci sëriñ pour liggéey la pour yàq la lu mu la def ci kawam lay dellu te dana danga nga ko gisal sa bopp képp ku am jaaro bi wërsëg pour am dara wala muy yàqu wala muy dem loolu dafay dañ ci yow wala nga bëgg dara muy jafe loolu dafay dañ ci yow su fekkee da nga nekk koo xam ne lépp loo yaakaar mu tas wala nga lépp loo wax nit ne danaa ko def rek nga gis loola yàqu boo takkee ja loolu dañ yow te yàlla daf lay may dee commerçant nag di jaay foofu ngay xamee njëriñ foofu ngay gën a xamee njëriñal bi